ba yéen nga ca daara yu kawee ci réew mi waxtu wi daal comme xalu ndeef waaye déet waay bés bi la journée daara yi kay bés bu ne mën na jax-jaxe ci réew mi ndax étudiants yi seen bopp daal ñoo fippu lii te seen bëgg-bëgg nag du dara moo ñu ubbi daara yu kawee ci réew mi ginnaaw juróomi weer ngi ñu tëj lépp la lay wax yëgle kaay groupe média bi ne en tout cas nga yëg nga ñàkk yëg le renseignement généraux yi wax ci daara yu kawe yi daal seddul déedéet ndaxte ñoom ñëpp nañu li xewoon ci réew mi ci weeru juin gi mën na xewaat ci réew mi rawatina ci daara yu kawe daal mu ngi ñaaw de bés bi ne li ci daara yi daal neexul looloo tax ba am na ci étudiants yi ci daara yi niñ leen di toppee looloo tax ba am na ci ay étudiants yi Sénégal rawatina ci université Cheikh Anta Ndakaaru comme ni ñuy surveiller mais ci safara noonu daal leen tëgee gët rawatina farandoo Ousmane Sonko yi ndax gars ñoom rek la topp bés bi la journée ñoom étudiants yi bëggoon def démb seen conférence de presse daal mujj ta antumuk ndax alkaati ñoo dikk jóor leen ay grenade lacrymogène tasaare leen yàq xew mi le témoin ne démb ki indi fata dëgg moo am ci daara yoo ne ñoom ñëpp ñu ngi ci loxo yoon lii le quotidien na ñoom étudiants yi a dégg moom mooy tëjub université yi lii a tax ñu meer becc ko ci mbedd bi yënga-yënga ca Ceeskaay ba dëkk ñaari gaar ci Ndakaaru ca Kaolack ak ca Jurbel libération ne étudiants yi nee nañu boo sàgganee dëgg ñàng meeg ñàng mi ci réew mi daal la ñuy gàllankoor enquête ne ginnaaw juróom weer bi ñu tëjee ràpp daaru yu ci Sénégal lii a tax nag ba étudiants yi seen bopp ni seen bëgg moo ñu ubbi daara yi ñàng mi daal dooraat ci Sénégal waaye kilifa yi ngànk daara yi ci Sénégal nee décembre atum 2023 gii lii nag les étudiants yi bëggatoo dégg mukk la lay wax ba tax ñu yëngu-yëngal wane seenu mer dëgg ginnaaw bëgg-bëgg kilifa yi ngànk daara yu kawee ci Sénégal yëglekaay bi nag coordination des écoles et nag ci UCAD nee nañu lii am waxtu yi ci daara yi nag kenn mënu koo comprendre te kenn mënu ko nangu mukk la lay wax wal fajri nag ginnaaw daara yi nga xam ne tëj nañu ràpp ak étudiants yi sàkku nag ubbiteem boroom xam-xam yi ci malaise dëgg la amee looloo yóbbu waxtu wi ci réanimation bu ñu sukkandikoo ci kàddu yoo xam ne docteur Cheikh Tidiane Dièye daal moo ko fësal te ginnaaw wér gu gi sudantee moom Ousmane Sonko ne sàkku teefam dëgg moo ñu delluwaat ko ci kaso bi bu ñu sukkandikoo ci ci avocat am libération Ousmane Sonko mu ngi ci réanimation te lii mu ngi amee ginnaaw grève de la moom Ousmane Sonko wér-gu-yaram nag bés nekk muy gën di sudante force bi ne candidat Samba Faye bu tribunal bu Ziguinchor les écouné en tout cas nga yëg nga ñàkk yëg agence judiciaire de l'État nag déposé na ni ki ci kaw table tribunal grande instance bu Ziguinchor recours ginnaaw dogalu juge Sabassi Faye sour so année saisi wu avocat Ousmane Sonko jëm ci Sénat ni ëllëg daal lañ ciy taxaw 24 heures ne waxtu woowu waa F24 nag nee nañu bëgg ñu tegi gët muuk jëwri ngu ñu dénk wàllu biir réew mi kaaraange gi Maître Sidiki Kaba a attey élection ci réew mi lii nag la nationale des élections ndaxte gars yi nee nañu taxawaayam gii daal dalul seen xel mukk looloo tax ñuy sàkku ñu teg ay ndombo tànkam ginnaaw jëfam gii jëm ci Ousmane Sonko vox populi waa 24 kay dal nañ bu baax a baax ci ko nguuru Sénégal gi ba noppi ne di ñaawlu dëgg xaj ak segg gi am ci biir réewum Sénégal rawatina diggante l'opposition bu Sénégal ak candidat coalition Benno Bokk Yaakaar bii di Amadou Ba ndaxte ñoom gars nee nañu la ñu mën a silo wanaasu mën a suñu ko ne candidat l'opposition bu Sénégal ñu ngi leen di kar Ba di doxal ba candidat coalition benn bokk yaakaar ngan li mu amal ca njabootuk maam Cheikh Mbaye dootu ko fàtte bu mug la lay wax ndax moom candidat coalition benn bokk yaakaar premier ministre bu Sénégal ku yor kàddu njaboot ki nee na ko yow Amadou Ba premier ministre bu Sénégal doon candidat coalition benn bokk yaakaar dund ko ci réew mi seer na lool ba jéggi dayo looloo tax ba baadoole ci réew mi nelaw te lu ñuy sàkku ci yéen dëgg mooy saafara daal am ci moom na ko yow Amadou Ba premier ñu jël maam Cheikh Mbaye ni Amadou Ba premier bu Sénégal li am ci réew mi moo tax ndaw amatuñu yaakaar mukk ba tax ñuy tere seen bakkan ci géej gi jël mbëkk mi ngir dem Barça daal mbaa Barça te lu ñu bëgg nag mooy justice boo xam ne day moom boppam ba noppi te njaaxaanaay waaye bëgguñu mukk justice ku ma am ndey ak ku ma amul ndey yëglekaay bi ne ngan li Amadou Ba amaloon ca kër njabootu maam Cheikh Mbaye moom ak Abdoulaye Mbaye Père doonu ko fàtte bu mukk gépp mooy gaay wàcc ci terrain bi ba noppi topp liggéey ñu sumb réew mi l'observateur ne waa soxoon ñaari bali ci Amadou Ba bi muy dëkk ngir inauguré centre de santé bu sàkkal moom waa nag léegi jébbal nañ ko brigade prévôtale l'évidence ne waxtu woo na SDD Souleymane Ndiaye ma ngay doxal nag bu baax a baax ca parrainage yi ndaxte nee na bëgg-bëggam mooy am cent te waxtu nag daanaka jege nag xaaj bi laa lay wax nii looloo tax muy daloo njukkal premier tour yi yëglekaay bi ne président mouvement ànd taxaw sunu commune Sakal di Idrissa Diagne mobilisation wu la amal ca Sakal ginnaaw dëkkub Amadou Ba ca dëkk ba ngir inaugurer ba yëglekaay bi ne Sakal kay léegi am na te ginnaaw mobilisation bi nga xam ne amal na bëgg-bëggam dëgg nag mooy fal Amadou Ba ci élection présidentielle yu dëgmal ci premier tour yi borom Thiès Abdoulaye Dieye jiital AIBD ma ngay doxal bu baax a baax ndax yëglekaay bi ne na ku yokkul daal yaa wàññ te ginnaaw juróomi na ni moom Abdoulaye Dieye la njiitu réew mi Macky Sall jox ci bopp AIBD mu ngi koy doxal bu baax a baax te ginnaaw social gi mu sàlloo comme ni ko njiitu réew Macky Sall santaane yëgle kaay bi ne moom njiitu réew Macky Sall ak Amadou Ba mën nañu compter dëgg ci borom Thiès Abdoulaye Dieye rawatina ci élection présidentielle yu dëgmal ci février 2024 bu Ndakaaru bu woon Khalifa Ababacar Sall ci Vox Populi ne ginnaaw tournée yu mu sumb ci Sénégal kenn mënta tax mukk ba du ko wóyal maanaam a Ndakaaru bu daal yemu ca ndaxte moom borom taxawu Sénégal nee maa ngi woo Sénégal gépp rawatina socialiste yi ngir ñu votel ma ndaxte socialiste yi seen bopp benn candidat la am te du kenn ku dul man Khalifa Sall meerum Ndakaaru bo woon bés bi le jour ne ginnaaw musiba gi amoon ca taseet nga xam ne benn tracteur moo far rey ñetti xale yu jigéen yéeglekaay bi ne am na beneen accident bu doy bu am ca añaam ndax benn minicar moo fa mbëkk ñaari xale yu seet loolu rek